نهما شيخ فالو شيخ فالو لاي نهمة الله رحمة الله نهما شيخ فالو شيخ فالو لاي نهمة الله رحمة الله نهما شيخ فالو شيخ فالو لاي ابن خادم رسول الله نهما شيخ فالو شيخ فالو لاي yaay sa dam sunu maam jaaratullaahi nema Cheikh Fallou Cheikh Fallou laay yaay sa dam sunu maam Habibullaahi nema Cheikh Fallou Cheikh Fallou laay yaay sa dam sunu maam Ahmadullaahi asalaamaaleykum suñu mbokk taalibe noo ngi leen di ziar waa Touba Vision ak waa Assalaamy TV noo ngi noo ngi leen di bu baax a baax ngi ci waañu kër soxna maam Awa Mbakke moom Serigne Fallou Mbakke ci màggalu Kazu Rajab gi ñu nekk di wax ni màggal gi at mu jot nii rek lay demee maanaam ñun ñooy ndongo yi nga xam ne ñoo nekk ci waañ wi lépp lu jëm ci lekk ndongo yi yëpp ñoo koy ñoo koy waajal waaye nag ngeen ko gisee nii daan na na daan na raw nii ndaxte contexte bu ñu nekk ak contexte Covid Covid 19 bi ñu nekk moo tax fi mu ne euh, ñu soppi doxalin bi ndaxte waañu waaye contexte bu ñu nekk ku xam ni ndi ku dégg ndigal li sëñ Muntaxa wax jaarale ko ci sëñ Abo looloo rot ba ci soxna maam Awa mu jottali ñu ko. mu ni nañ ko màggal waaye nañ soppi doxalin bi def ko ni nga xam ne moo dëppook jamono ma waral ma waral mbokk taalibe yi ngeen gis fi effectif bi ndaw lool waaye daan ëpp li ndax waañ àll al àll àll bu yaatu la doon doon. waaye ni yëf yi demee moo tax ñu yemale ko ci kër gi ni bu ko defee ñu lépp ci sàmmantoog ndigalu sëñ bi ni ngeen ko gisee rek saa su ni lay demee dañuy togg ndékki togg añ togg reer noon noonu noonu rek lañ koy demalee saa su nekk lépp rek nag ci bëgg bëggal nga ñi nga xam ne dañuy ñëw dëgg la ni ñi ñëw bariwut wàññeeku na waaye comme ñàkkul ni dina am ñu ñëw faaw ñu berndeel leen comme ni ko sëñ bi waxee rek taxsimahu bi sunnati naa li jannati bi ziyaadul minnati li muxlisi li muazami loolu ma ngi ko wax ci gàmm waaye day rogalaat ba ci kazu rajab sunna si nag xam naa ne mooy jàng alxuraan ak loolu waaye tamit ndawal yi nga xam ni dañ koy togg ak njam yi nga xam dañ koy togg jëmale ko ci ndongo daara yi jëmit ci sunna si la bokk mënta ñàkk kon waa ñu noonu rek lay demee ñun ñoo fi ñoo fi ñoo fi nekk ñun ñëpp xam naa ni suñ jëwriñ dafee teewut man lañ sas li ndongo man maay ndongo lu xeebu lu ñu sas liggéey waañ bi maa ngi ceeg sama jëwriñu mag yi xanaa dama cee gën a sopp rek moo tax ñu jox ma ko waaye comme comme comme comme man lañ ko jox moo tax ñu jox ma kàddu yi xaw naa jaxasoo nag waaye fii fi toll ak euh, liggéey mi ni mu bare moo tax waaye ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf di ñaanal soxna Maama Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wër ak suñu abo ak sëñ Mountakha Mbacke jaajëf aminun laay baay sew ko aminun laay baay sew basiro xalinun laay aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, bokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew di ñu seetaan ci seen site yi di Assalaamy TV wala Touba Vision ñoo ngi leen di nuyu <clears throat> fii ci kër soxna maam Awa Mbacke bint Cheikh Mahamadul Fadal ñu gën ko miin ci soxna maam Awa caat Eh, ci bis bu tedd bi nga xam ne moo di ñaar fukki fan ak juróom benn dëppoo ak guddi ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru rajab di àllarba le 10 mars ñu toog dend ak sëriñam di magam di sëriñ Amsatu Mbàkke ibnu Cheikh Abdoul Mbàkke responsable moral Xudaamul Xadim eh, ñu ñëw ci kër gi nag ànd ak magi taalibe yi nga xam ne xamoon nañ leen ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ñenn ñu ñu xam leen ak Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacke te ñooñu ñaar ñoo seq Serigne Amsatou xam ngeen ne tey jii day bis boo xam ne eh, sunu borom subhanahu bokk na ci xaas yi mu jagleele Cheikh Ahmed Bamba mooy bis bu mu gërëm moom yàlla. wala mu gërëm ca nitu yàlla bis boobe dëppale na ko ak benn événement ci événement yoonu murit ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci rajab moom lañu ñu sun borom subhanahu wa taala di junj ci alquran naan subhana allazi asra bi habdihi laylan min al masjid al harami ila al masjid al aqsa ba aaya ba jeex <coughs> loolu nag e, li dëppool ci taarixu yoonu murit xam ngeen ne guddik ajjuma yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer rajab ci la ci atum 1887 ci la cheikh Mouhamadul Fadal gane woon jamono ca Daaru Salaam muy bis boo xam ne ñaari événement am na ci mooy ci la sun borom subhanahu wa taala ne rañaane woon Moustapha sallallahu alayhi wa defal ko loo xam ne beneen yonent dutu ko am bu dut suñ bos waaye jox ko ci itam ndigalam yi nga xam ne suñ borom nee na ku ko ku ko baaxle bu ëllëgee dutuma seet sa dara te mooy julli yi juróom suñ borom jox ñu ñun yoonu murit fadlullahi yuti man yasa wallahu sul fadlil azim te kooku mooy Cheikh Mamadou Fadal kon muy ñaare événement xam nga ne nag at mu jot ba ko sëriñ Modou Moustapha Fallilou santaane ba nëgëni Euh, soxna maam awa at mu jot dana dajale ay bokkam ak taalibe yi ak ay xaritam ak soppe yi ànd ko kilifaam gii di sëriñ Amsatu mbakke ñu ñaan suñu borom yàggal leen fi te loolu seen wér dundal ko ci ni nga xam ne ni ko sun borom subhanahu wa taala bëggee waaye noonu la ko sëriñ Tuubaa santaane ci taxsimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi isdiyadul minnati li moxlisin maazimi euh, mu am ci taxawaay bu ràññee ko gis ngeen yaakaar naa ne da ko gis ci PG yi taxawaay yi nga xam ne te loolu mooy taxawaay màggal ci yoonu murit mooy def ay salaato ala nabi ginnaaw boo jàngee alquran ci limi kaamil yu bëree bëri jàng ay xasida def ay salaatu ala waaye nag def bernde ci yooyu lu ci nekk day benn poñ boo xam ne bokk na ci poñ yi yéege nit di ko jëme ci yàlla Eh, soxna maa woon nag ci taxawaay yooyu la nekk ànd ko kilifaam gu tedd gii eh, borom bis bi nag di Cheikh Mamadou Fadal damay wax toujours ne bénéfice bi ko yàlla defal day bino bénéfice bu rëy ndax bénéfice mi nga ajoo ci marchandise mooy jaay marchandise it mi ci ëpp bénéfice moom mi ci ëpp qualité marchandise mu am qualité saa yoo ko jaayee am am quantité ci bénéfice sëñ Fallou marchandise mi mu am te jaay ko te mooy marchandise mu am qualité mooy dafa gis client bu bëgg mu am marchandise nangoo jaay te client ba am xaalis euh, sëriñ tubaab moo xëy wax ko ca Ceyeen Jolof ne ko lii ma amee te moom ngeen di wut yéen ñëpp te mu leen koo ñàkk day jaay sëñ Fall na ko lu muy jar mu ne ko sa wëlëru seer bi sa marchandise mu seer mii nga yor ngay nangoo ñàkk muy may sa baay ku ne xam ne ne doon doomi sëñ Touba su doon jaayee kenn du ko jënd ñoom eh, dañoo bokk ci tànneef yi yàlla tànn tànnal sëñ Touba muy seen baay doomi sëñ Touba moom bu góor ba ak bu jigéen ba ñoo yem ku ñoom ñoo la ëpp maqaama fa yàlla mu ne ko kon dutuma doon sa baay sëñ Fallou na ko nangu naa mun ne ko it dese nga ci beneen tomb bu seer mu ne ko bu mu doon mun ne ko yow bi ma doonee sa baay ba noppi maay sa jaay da ngay nangoo jaay itam duutuma doon sa nijaay sëñ Fallou kon ci bëccëgub keroog rek la ñàkk bàyyi ñàkk nijaay kooku nag day daal du nekk ab jirim waaw ab jirim mooy ku amatul ndey amatul baay sëñ Fallou moom jaay njureelu bàyyi gi jaay njureelu kër ndey gi jënde ko nag mooy li sëñ Touba ame mooy moo doon ab taalibe ba ko jëndee nag ba jot marchandise ba jot cap euh, wa euh, kiyam bénéfice am ba téye xaalisam mu ne ko xaalis bi it am naa lu ma ko gënal mu ne ko lu ma ko gënal mu ne ko capital bi nga xam ne ci la nit ñiy wute xaalis ma moom ko léegi usine bii defar xaalis bi léegi laa bëgg moom mu ne ko kon indi xaalis bi mu jox ko xaalis bi mu jaayaat ko loola loolu moo tax ba mu demee ba jot ci njëgam nag toog di sëñ tubaa mu wax ne daa ngeen ma wax na yow a mën a leen du man tey jii nag maa taxaw ne man a maay sëñ Tuubaa loolu ci moom lañ ko njëkk a dégg te eh, yemut ca sax daa mujj ne waaye may Sénégal te biir Sénégal lépp a ngi ci biir yore nag jikko yoo xam ne day ànd ak fadlullahi ji jikko yi mu amee mooy tedd ngay jikko yi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa tagge woon Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mbub moomu day damay wax ne mbubum yonent bi kuñ ko solal mu ëpp la waaye sëñ Fallu de bu solee mbub mi soo gantee dana mën a dox mbubb moom mooy man mooy labista ziyabal majdi wal fadli wal hula wa fiika min al axlaaqi ma ahjasal kulla loolu la sëñ Tuubaa waxoon Moustapha sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu ci tedd ngay jikko yooyu nga xam ne moom la Moustapha làmboo loo ci làmb daj ko ci Cheikh Mahmadul Fadal ndax ku ñu tudde nit kat wax nañ ne da nga jël ci moom juróom-ñaari jikko juróom-ñaari jikko yonent bi nag ku ko jël ku ne gën gën saw xeet gën saw maas sëñ Fall loolu la ko yàlla defal mu doon gor soo xam ne ginnaaw bu mu jàngee alxuraan ba mu wóor ñu ne amut ku ñemee taxaw ne maa raw sëñ Fallu ci àdduna ci alxuraan maa la dàq alxuraan moom amut mu jàng xam-xam ba xam ne wóor na ko ne mbooleem ñiy jàng dañuy ñëw di jàng yowaat ci moom waaye moo leen raw dàq leen a way dàq leen a bind bindal bindal sëñ Tuubaa ñeen fukki kaamil tabaxal ko jumaam jim ba mu àgg mu nekkal ko imaam imaam ju daan waarante bokk na ci sëñ Fallu borom jàngkat yëpp ma mën a jàngewaat ci sëñ Fallu dama koy wax te nee naa ñaari baat yooyu sëñ Fallu ak Cheikh Abdoul Ahad ñooñu ci indil référence mooy sëñ Fallu bi muy firi Eh, li nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala mooy wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman ñii firi ñu bari tafsirkat yi dañ naan sunu borom wax na way gëm yi na leen dee leen julli ci Moustapha sallallahu wa ndax yàlla ak i malaayikaam dañuy ci moom sëñ ñu koy leeral daf ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi kon ya ayuha allazina amanu sallu alayhi yéen kat dee leen liggéeyal yonent bi ndax yàlla ak yu malaayikaam dañuy liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu kon dégg nga ne sëñ Fallou ko am ak dégg gu soree sori la loolu damay wax ne mooy mooy li ñu sëñ Ablaat doon firil ci wasixtu bi rabbil arsi ak wasixtu ma muxtaar yi ci ay engagement mu ne engagement nag mooy loo xam ne bu ci nit duggee duuti ci génn kon day mel ne kooku ñi doon làkk baatub engagement moo leen gën a dégg làkk wi sëñ Fallou doonoon nitug yërmande doonoon nitug yërmande yërmandeem ju rëy taxoon na bu ma saa julli àjjuma bay génne ci jumaa ji wogganti rabalamba ba jëm si ci këram gi gone yi topp ko naan ko maam yàlla nga fi yàgg jaaykati picc yi dañuy fab seen keesi picc yi teg ko ci kanam sëñ Fallou su ko defee bu sëñ Fallou seenee picc yi ne ci kaaf gi kaaf gi day xat picc yi du mën a naaw sëñ Fallou bëggut ku ku ku ku dox nit ki insécurité am sëñ Fallou daa ah, leen ñu naaw waaye xajuñ fii daal di jënd kees yëpp du dàq picc yi ñu naaw dara na ci jubluwul weesu yërmande ju mu am ci moom xam ne picc mii ko daal liibaroon ci naa wet gu ko neex jëm tey ñu tëj ko ci benn bunt amul fu mu jaar loolu bëtam mën koo gis moo tax ma daan jënd yëpp di ko sànni kon bokk na ci yërmandeen bu yaatu yoo xamante nit xam nañ ko ci moom waaye doonoon nit ko am njariñ eh, dañu wax ne jaamukatub yàlla lu mu mën a mën a mën a jaamu yàlla boppam lay jaamul yàlla ndax yàlla moo wax ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yahbudooni bindu ma nit ak jinne lu dul ënd leen fi ñu dima jaamu kon jaamu yàlla moom farata la ku ko def sabab loo koy defal li ñuy doyee kilifa dëgg mooy am njariñ sëñ Fallou daa amoon njariñ damay wax toujours ne kilifa gu la ëpp ay dàlli buntu kër moo la ëpp njariñ ku amul njariñ daanaka ñaari dàll peeri dàll bu summeeku sa buntu kër nit ñi njariñ la ñuy war ndax dañ yàlla sëñ Fallou danaa wax naan jaamu yàlla ci jaami yàlla yi sëñ Fallou nit ku amoon njariñ la koo xam ne bu ñu xoolee li nga xam ne yóbbu na leen ci ay nit ci ay ci màkka ñi nga xam ne takkal na leen ay soxna ñi nga xam ne ngénteel na leen seeni doom li mu jëndal nit ci ay oto ñi mu tabaxal ay kër ñi mu génne ci ay xat-xat soo ko doon lim suñ leen beree danañ mat ab raison sëkk ci ci ci Sénégal kon loolu mooy tegtale njariñul Cheikh Mouhamadul Fadal li nga xam ne suñ borom jox na ko ko te nit njariñ rek lañ koy doyee bu ci desee mu ñëw ci yërmande sëñ Fallou sëñ Fallou yërmandeem yaakaar naa ne làmb na adduna bi yërmande yi sëñ Fallou làmb na adduna bi loolu moo taxoon musta nangu ku doyadal doomu aadama wala ku xoqtal doomu aadama nekkoon seen avocat ci lépp lu mu mën a doon kooku nag bu yàlla dogalee bisam ñu toog ca di ko fàttaliku toog ci kër ki nga xam ne moo di am caatam te daanaa dégg mag ñi di wax ne am néeg moom ku la fa mujj dana fa xam loo fa xamut e, te e, sëñ Tuubaa danaa wax na may munal mubaarakul ibtidaa yi waaye may munal intihaa yi kon yaakaar naa ne tey jii bu ñu àndee ak soxna maam Awa e, ñu dend ak njaboot gi yëpp Cheikh Mahamadoul Fadal mi nga xam ne moom la sëriñ Amsatou duppee Cheikh dul Fadal muy borom màggal gi ñu toog ànd ak waajuram di dundal bis bi e, ngeen ñëw fekk ñu fii yaakaar naa ne e, duñ man lu weesu gën a gërëmaat soxna si ci gën koo ñaanal yàlla liggéey bi muy liggéeyal yàlla yal na ko ci yàlla taxawul boppam ci barkeb Cheikh Mamadou Fadal ba mu àggale ko fu kawe njortam e, njaboot gi ko àndal sun borom def leen ay mag te def leen mag ñoo xam ne dañ tekk ci biir yoon wi sëriñ Amsatu mi nga xam ne mooy kilifaam te doon nit koo xam ne nitu qualité la damay wax ne sëriñ Amsatu nitu qualité la lii nitu qualité mooy sëñ tubaay sama maam moom ñi ko mën a damoo bari na sëñ tubaay sama maam waaye nag sët bu sëñ tubaa di maamoo dafa am solo te loolu ci ay mandarga lay doon ci ay jikko lay doon sëñ laxat Lahad way juram nee na woon sun borom buy wax yaa ayyuhan naasu képp ku sa bopp sax jëm kaw say tànk jëm suuf ci nga bokk waaye xaw mun nag ay mandargaa koy def ci doomu aadama sa yam sa nag mënees na ko boole ci ñooñu suñu alxuraan di juñu ci xaw mun yooyu muy wax ci ay mandarga mooy xam fi nga jëm xam fi ngay teg sa tànk am looy jomb am loo bëgg te ku ne xam na ne e, bokk na ci tedd ngay jikko dëgg mooy lépp nuñ teg ci sab ci lu ñaaw nga nangu koo muñ ngir jëmmi yàlla ji waaye fépp foo xamante ne bi lu baax nga fa kuy seen seenaale la ci e, loolu nag mooy taxawaayam ci défendre l'islam ci saa yuñ tooñee lislaam défendre tariixa bi ci saa yoo xam ne tuusi nañ tariixa bi dimbale doomu aadama yi ci jëmm yàlla rek ji tax loolu yaakaar naa ne loolu mooy jikkoom ci ginnaaw boo xam ne fi mu war a jaar ci alquran jaar koo jaar ci xam-xam doon doon doon doon boroom xam-xam bu mag eh, boo xam ne ku ku ci ku koo xam ne yaa ngi koy nattable rek nattu ko ci sa bopp natt ko nattu ko yéen ñaar ngeen nattoonte da nga xam ne kii ba ba jàng jote jàngi na waaye ñu doon ko tërbiya yi koy it nag yoon wi dafa laaj dafa laaj tërbiya eh, daa am yoo xam ne ay ay ay ay ay ay ay ay ay sew sew lay doon yoo xam ne ay jikko yu yu yu taggut la boo gisee naa yonent bi naan innama boo xistali utammima makaarimal axlaaq ngir ma mottali wala ma dindil leen seen jikko yu ñaaw defal leen jikko yu rafet yooyu ci tarbiya rek las ko mën a jëlee ndax day am ay sew-sew yoo xam ne tarbiya ci bakkan wala ci bànneex muy xol wala ci jëmmi ji jëmmi doomu aadama ji wala ci ruuxam yooyu ñeent la daaray tarbiya di def ruux das koy defar ba man koo marale ak boroomam muy muy am yëg-yëg ci yàlla di ko dund xol das koy defar ba du yéene dara lu bon te ak bëggam gépp day jëm ci lu baax jëm ci yàlla am xel des koy defar ba du nangoo xalaat jëm ci lu ñaaw aw yaram des koy defar ba ku ko seen bëgg kooka te loolu yooyu màndarga yaakaar naa ne ko xam sëñ Amsatu te te te dund ko dund ko dund ko yaag moom da nga xam ne loolu def na ko suñu borom def na ko ci moom ci ñaari royukaayam muy way juróom bi ko jur ak sëriñam bi ko yar di sëriñ Saliou Mbacke muy kilifa ak soxna ma awa yal na leen su borom boole yàggal loolu di seen wér ci darajey bis bi nga xam ne nag nee naa leen toujours sëriñ bay solution sëñ bi moom mooy solution yaakaar naa <clears throat> heure bi daaw su ma jumut le 2 mars la fi coronavirus duggoon le 2 mars la fi corona bi duggoon corona boobu fi dugg tëj Sénégal tëj àdduna bi gàllankoor lu baree baree baree bari ci xew-xewi diine yi bokk na ci bi njëkk a gàllankooru mooy màggalu kasu rajab bokk na ci li njëkk a gàllankooru ci corona bi mooy màggalu kasu rajab waxoon naa ko daaw waaye nag eh, yàlla may nañu ndam ren eh, màggalu kasu rajab dellusiwaat le 2 mars bi fi corona di woon le 3 mars evet lu rëy xew ci Sénégal loo xam ne adduna bépp ngi maase di ko di ko mititlu di ko mititlu eh, ci loo xam ne mënoon naa ñàkk ndax am réew ñun ñëpp ñoo ko bokk benn drapeau lañ am muy wertu jaune rouge mu am étoile bi e, gen benn penku lañu am ndax quatre-vingt-quinze pour cent sénégalais yëpp ay ay jullit lañu ñun ñëpp bu ñuy julli ñooy bokk fu ñu jublu muy penku ñoo bokk benn téere buy njàng muy alquranul karim e, bokk yu baree baree bari ba noppi itam di genn bokk soo demee ba Casamance ñëw ñëw ba Kajoor dem ba Njàmbur dem Bawal dem Saalum ñooñu ñëpp boo leen dajalee ay kal lañ ay kal lañ ñoom ñëpp ndax ñoo bokk lépp ñoo bokk ndey ak baay kon benn ñoo bokk génn yëg-yëg kon bu bu yàlla dogalee nattu ñëwaat Sénégal ci waxtu wa ñu nattu wa daloon daaw waxtu wam ñu daloon daaw ba Sénégal tëjee natt boobu bi mu del siwaatee di 65 jours wala 365 jours wala 364 jours natt ba del siwaat di ko bu ko gën a métti ndax bii moom dañoo taxaw gis ñuy rey seen moroom di leen rey te wóor na ko ne gënalu leen ñu dee de ay gone rek nga xam ne ka ca mag amul lu ëpp 37 ans loolu lu métti la ci ci réew mi yal na yàlla yàlla bu mu fi jaar bu mu fi amati lu mel noonu yàlla bu mu ci àdduna bépp waaye waras na cee jànge nag ne nattu ban daloon daaw yamoon ci e, mbas bu delsiwaat di mbas mu wàcc ci suñu bopp war nañoo jàngat ñun ba xam luñ def yàlla ba yàlla dañu faye lii loolu ab jàngat la bu laaj sëñ fàll waxoon ne bi jamono xatee fa min mustakin balan yow yàlla nanga xam ne kuréel bee mbas mi lañuy jàmbat mbas mi fa wa min mustakin daynan kuréel bee nga seen nag àdduna la ñuy jàmbat ak li ne ci biir àdduna wa min mustakin faqran beneen kuréel bee nga seen ñàkk gi la ñuy jàmbat ñett yi képp la Sénégal di jàmbat daaw ba ren ñàkk àdduna ñàkk gi ak mbas mi loolu nag kon mënuñoo am solution lu dul dañoo dellu ci ka nga xam ne ba mu jàkkaarloog yàlla wax ko lii yàlla teggi woon na mbas moomee mu di Cheikh Mamadou Fadal ak siwaan nañ ci bisam nan ñaan ci bis bi suñ borom jëlee jafe-jafe yi ci àdduna bi yëpp waaye jëlee ko ci senegal tappe xoolee Sénégalais yi mu nekk benn ñi faatu ci natt bii fi jaar yal na leen suñu borom tabbal àjjana yal na yàlla de indiwaat jàmm indiwaat solution indiwaat nag xol yu leer ak xel yu jub ñu àndaat bokk jàppale suñ kilifay diine yi bañ tabax Sénégal ndax kat damay wax ne réew mi saa yu ñu jàqee delluwaat ci kilifay diine yi te bu buñ amee liñ bëgg bëgg leen a teg fay loolu moom yàlla du ko seetaan faw kilifa yi diine yi moom ñu xam ne réew mi réewum diine la faw nit ñi am kilifa kilifa it faw ñu leen di déglu ñu dañu woo mat jëme ci yàlla ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm di ñaanalaat soxna si yàlla yàlla sàmmal la boppam taxawu la taxawu njaboot gi barakat Cheikh Khadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki julli yi waaye tam mbokki taal bi ñu leen di siyaare kilifa gi suñu sëriñ Cheikh Amsatu Mbakke moom Cheikh Abdoul Ahad ak suñu wajur yi soxna maam Awa Mbakke Fàll ñu ngi woon fii nag ci soxna kër soxna maam Awa Mbakke moom Cheikh Amadou Fadal ñu gën ko xam ci soxna maam Awa Cooka mooy caatum Cheikh Amadou Fadal ñu doon dundal bisub Sëñ Fallu bi fii ci Touba di ko dundalee ni ko borom bëggee mooy weeru taroo ba ba léegi ci lu ñu ci lu ñu man def jàng koy kaamil ba ba bis bi tey te jëlee doon tëj kaamil yi ak ak berneel di ko di ko di ko berneel gàññi ñun nag ay ay li suñu fàllu waxoon rek ci lañ nekk amuñu ñun ñi amuñu dañoo dañoo jaayante suñu lépp ci sëriñ bi nga xam ne mooy sëriñ am sutu moom Cheikh ñun moom ay taalibe la doon ba fu ba fu nekk taal bi rek lañuy sàkku ci moom damay faral di wax ni ñun moom aw dal lañ te aw dal aw dal borom moo koy sol dàll dal wi sëñ bi sëñ bi dal wi fu mu neex jëmiñu ñun moom ab taali bi rek lañ te fuñ tënku ndigal ak tere lañ tënku te sëñ bi bu ne woon itam tey jii bu màggal gi am fu kenn ñëw du duñ màggal kon kon nag moom ay taalibe rek lañ lañu doon te amul lu taalibe ñu ngi ñu ngi ñu ngi sant daal mbooleem ñi nga xam ne ñooy fédération daayira Majmahun Nurayni bi nga xam ne moo lëkkale daayira su kër soxna si ñëpp ñu ngi leen di sant sant bu baax a baax ci farlu geeg ak passeef lépp ñu ngi ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax ci li ci ci ci ak ak ci lu weesu lépp di sant ak njaboot gi nga mooy mooy njaboot sama njaboot sëriñ gi nga xam ne mooy njaboot Cheikh Ahmadou Mbacké mu Cheikh nekk ci bopp bi mooy Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké euh, ak Soxna Jaara ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci taxawaay taxawaay yu rafet yi nga xam ne ñu ngi koy taxaw ci kër gi ñu sant daal bu baax a baax te nga xam ne taxaw na ci taxaw nañu ci nampal ñu ci ngir ñu xam ñu xam ki mu doon ak ak ak bëgg sañ bi te xam ak ak ci ci njub rek lañu ñu wax di jàll te euh, ñun moom benn lañ ko gis ci ci njub rek lay lay lay te euh, moo ñu ci yar te aw doxeenam doxeenam lañ lañ gis ba ba di ko ci di ko ci roy ba ba ba ba mel nii te naam naam matuñu waaye ñu ngi jëm euh, incha duñu dégg ci loo xam ne lu ko neexul la incha allah incha allah kon nag ñu ñu wàcce kàddu gi wax ki ñoo dëkk ci kër goo xam ne moom eh, dañuy fay tooñ ñaañu muum lañ <laughs> wax ki ma ma réewuñ ko waaye ginnaaw ndigal la rek te sañu sa sa sa sañu fa ko bañ kon nag ñu ngi ñu ngi ñaan si daraja sëñ sëñ Tuubaa mi nga xam ne ak Cheikh Amadou Fadal Cheikh Abdoulaye màggal gi yàlla yàlla yàlla def xaaju bi fi waay indi mu faj ko ci barke